waaw xam nga moom bis bi moom bisub sant la ak ngërëm je crois que ne ñun sénégalais yëpp euh, de toute obédience et de tout bord ñoo war a sant yàlla ci bis bi def ay élection yu mucc ayib am président boo xamee ni fal nañ ko fal boo xamee ni kenn mënu koo contester je pense que ça aussi ça importe beaucoup ça montre que les sénégalais ont envie que ça change ils ont envie que le pays devienne meilleur surtout autour des préoccupations de la jeunesse xëyu ndaw ñi wàllu sécurité waayu qualité de vie wàllu santé wàllu éducation état de droit liberté maanaam rupture daal ci doxalin bi nga xamee ni lépp préoccupation dañ koy jël tekk ci li nga xamee ne mooy i askan wi je crois loolu moom rek la ñuy ñaan te di ñaan yàlla mu jik Basiiru ba pare Basiiru jik ñu euh, te ayam bi yàlla na doon ayub jàmm ak salaam ak xéwal boo xamee ne Sénégal yëpp a koy bokk. maa 2021 bu may ñëw si assemblée nationale fekk la si kaw yow wax yi quelques députés pour euh, euh, li nga xamante ne moom mooy commission ad hoc bi doon def pour génne immunité parlementaire Ousmane Sonko je sais pas mba xam yaa ngi yaa ngi rappelé wu. bien sûr mu nekkoon xeex bu nga xamante ne yow daanaka ci premier acteur yi nga xamante ne xeex ngir Ousmane Sonko lu ñuy wax dañ ko teg injustice euh, moom nga doon xeex tey jii ñoom gagné na ñu ngi au pouvoir yow nan nga gise Euh, lu ñuy wax ne Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ñoom ñoo fas yéene diriger te benn nit rek lañu la ñu fal nan nan nga gisee euh, euh, configuration boobu. xam nga loolu d'abord damay tàmbali ci comité ad hoc boobu nga doon wax man ku ma xam-xam ni démocratie ak état de droit ak liggéeyal Sénégal ak taxawu Sénégal fu mu mën ci doon moo mos a doon sama leitmotiv ak sama axe principal bi nga xamee ni si laa teg sama action politique bien évidemment tey jii. Euh, duo la ndax Ousmane Sonko mooy kilifa parti bi euh, Bassirou nekk ci biir mu tànn ko ñu fal ko je pense que ni démb ak bërki démb ils étaient en parfaite entente il faut que sénégalais yi wóolu leen ci loolu aussi te bañ a dugg si diggante bi bañ cee ñaaw njort bañ cee def luñ ci war di def parce que le principal mooy dañoo war a ànd pour liggéey Sénégal pour que Sénégal soppeeku pour que Sénégal jëm sa kanam euh, la meilleure manière de le faire c'est que ñëpp juboo ñëpp ànd est parfaitement au sommet de l'État il ne faudrait pas di dox loo xamee ni warul mën a nekk te amul benn sens même pour mu nekk parce qu'ils ont vécu pendant des années ils ont construit quelque chose boo xamee ne am na solo moo leen may victoire bi je crois que si on leur fait confiance et qu'on les laisse ensemble Sénégal rek moo siy jëriñu et je n'ai pas de crainte à ce niveau ñu ñu bëree peut-être rumeur yi dégg nga ko ñu bëree na ñëw Cheikh Bamba Dièye ministrable la premier ministrable xaw ma ba xam dégg rumeur boobu yow parce que li am solo man bi may def je le faisais gratuitement pour le Sénégal réaliser ko réussir que c'est déjà une victoire importante pour moi il faut que nit doo ko fal ba pare di ko fakastal on a un président de la république parmi ses missions mooy mu wut équipe am boo xamee ne doy na ko euh, ku mu mën ci tànn peu importe lu mu ko tànnee ak fu mu ko mën ci tànnee li am solo rek li ñu doon xeex ba am victoire bi nañ ci nekk suba ngoon peu importe qui sera la dans et en ce qui me c'est pas euh, une priorité